ñu devons seen xam-xam ak seen digënté ak seen borom wax ñu lañu gis lan la ko waxé ba paré ku la nga xalaat nga xalaat ko ci wante ko société pouvoir lañu judiciaire bu indépendant cest président de la république amul sañ-sañu ne def def juge bi mo am responsabilité digganteem mak peuple bi ak digganteem mak boroomam àtte ci kaw këyit yu leer donc loolu mooy mbir mi wante ñëw leen dee pour ma mucc wala ma bañ a wuy ji loolu du waxu kilifa ay la yéen donc képp koo xam ni kii kilifa nga bëgg ma dox ci jàmm da ngay ñaan sama di Ousmane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

suñu boroom jàppale ñu Sénégal dellu ci jàmm dellu ci dal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.